amis et fidèles internautes yéen ñi nga xamante ni yéen a ñu bàyyi xel à travers site internet yi fi nekk yëpp ku ne xam ne ni euh, Dieyna Baldé moo woote euh, doomu Kolda l'enfant chéri euh, ñu ngi lay char bu baax a baax di jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm sister di la wax heure ménage. merci beaucoup di delloo char bu baax a baax di ñaanal ñëpp di kontaan tamit ci ñëpp franchement gis naa gis gis nga lépp mais est-ce que du loolu yaa ko liggéey Sénégal parce que Dieyna euh, bi xew mi amee bi ma déggante ci état dañu ma na xàjjiwul amul solo donc sénégalais yi mën naa ne sax nit ñi du ma ne sénégalais yi. contentement bi ñu am man peut jiwuma leen ko mais ñoom ñoo baax seen baaxu bopp rek mhm. donc di ñaanal ñaar euh, nit ñi aussi ñu am jàmm bu baax a baax di leen xamal ni que tamit kontaan naa trop trop trop trop mhm. parce que depuis bi ñu yëgee nouvelle bi ba léegi franchement appel bu ne maa ngi jot message ñoo ngi posté ñi nga xam ne xam nañ ma xamuñu ma ñëpp ngi posté cela veut dire que kontaan nañ mhm. donc di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm. sa relation ak sa waajur bu jigéen def la gis rek commencé tuur ay xéwal yow tamit mënoo téye téye sa am yéen ñaar. waaw sama yaay kooku mooy sama xol parce que bi ma ñëpp bàyyee moom moo ma bàyyiwul mu jàpp ma di ma soutenir lu mu am jox ma di ma dolli xel. di ma yokk xalaat xalaat nag ci côté positif mm-hmm. voilà donc ma koy ñaanal mbaalo bànnaa yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram parce que lii nii bis bi ma am tey lii rek la doon ñaan yàlla mm-hmm. saa yu ma woowee loolu la doon ñaan saa yu jullee loolu lay ñaan donc yàlla may na ko mm-hmm. ma gis ko nag moom ma gis ma rek jooy ndax man xam naa li tax mu jooy moo ma jooy lool. lan moo ko jooy lool. non loolu du ma ko wax. <laughs> waaw tey loolu mënut a ñàkk parce que yaay doom donc une personne très effacée euh, tey gis mu génnee euh, démb benn son tuddee ko validé mu mel ni jikko yi nga xamante ni moom la Dieyna Baldé làmbool ci mbaax ci yar ci jikko yu baax la génn ci son boobu. waaw loolu la rek dama koy nuyu moom bébé Damou faal mi yàlla faale ki nga xam ne moo ma sagal bàyyi fi ñëpp takk ma. Mhm. donc kooku aw ma fayam vraiment li mu wax ci son boobu nag daf ma bett man xaw moo ni que sax dina ko génnee dafa jég saa rek ne ma duggal sa WhatsApp ma dugg xool. mooy loolu surprise donc ma koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram yàlla jubóole ñu may ñu njaboot bu barkeel incha allah waaw. lan sa moromu jigéen ñi nga xamante bi di door a dugg ma leen di damay ñaanal ñëpp daal parce que instant yi moom moom amaguma conseil bu may jox ni ndax maa ngi doog a dugg donc di remercier sama nit yi nga xamante ne samay sœur samay xarit yi nga xamante ne bu ñu ñëwul woon sax du ma mel. Mhm. ndax dama leen dugal sama biir xol donc ñu ñëwal ma xeebaluñ ma sama bis bii depuis boobu arrêté wuñu di ma woo di ma message c'est la première fois ngay gis xew bu ay artistes def ay hôtesse man je crois mosuma ko gis ñu wàccee seen bopp xam nga jàppee ma ni seen bopp boobu ba léegi li ñu déggante sax lu bëri mais ñoo ngi déggoo seen biir xam nga di jéem a def affaire yi mu nice vraiment aw ma seen fay yàlla na yàlla may guddoo fan ak wér gu yaram liñ ma lebal nii nañ xam ne ni que lebal nañ ma teraanga nag ji nañ ma ko dinaa leen ko delloo waaw comme li ma waxoon sànq rek nee naa ko merci beaucoup mon amour su ma waxee wa euh, juum donc maa ngi lay remercier bu baax a baax yàlla may la gudd fa ak wér gu yaram yàlla na yéen bi oyof tamit ndax xam naa ni man ku diis la <laughs> merci beaucoup merci macha allah. ñu bi. Euh, tey sa rakk. sa xarit xew xewle ngeen def délégation ñëw jàppale ko ci bés bi. Mhm. waa kontaan rek parce que man ñii dañu nekk samay rakk ba pare magoo ma mhm. jëy naa bi xew mi tàmbalee ba tey man ak moom chaque jour lu ma def na ko noonu lu ma wax neex na bokk nag mu doon xale boo xamante ne chaque jour fu ma toog dama koy wax ma ne ko yow sa xol rek bu la ko yàlla fayee mhm. doo tiit doo jaaxle ndax du jàpp mer ba pare. lu mu wax loolu moo dëgg ci moom bañ nañ ko ba des fois dañ koy bàkkee réew mm-hmm. fekk dëggu rek moo ko jàpp suñu ànd bi nag may ñaan balaa maa tàmbali ngeen ñaan yàlla yu lañu am ndax nag Moustapha Dieng daf ñoo boole ci effort boole ay jigéen rek ci lu ñàkk fayda yàlla def ci barke ñu doon ay xarit di ànd ànd bu sincère boo xamante ni day daw yaram ku ci nekk day confier moromam loo xamante ni affaire daray concurrence ñoratuñu ñun dañuy ànd di bëggante te yàlla tax tey loolu la jëy laa def ba jëy naa mi woo sabel ba mu ñëw mu boole ko ci ay magaleem te mënoon na koo bañ def mënoon na ko ni yow nga may waykat xëcc concurrence mais mbëggeelam ci moom dafa yàgg bañ na ko ba dama leen daan jéppi ni leen yéen doy ngeen waar buñ toogee groupe di waxtaan ngeen di beru jëy laa kottu sabel mi du ko baax kon donc loolu feddali na ko tey bu ko boolee ci ay magale boole ci nabu naanaa caam mële nga xamante ni moom Basiru Caam a bokk ndey ak baay def na li war Sabel nag affaire bi bett ko ndax ku ne xam na ni mariage mi waajuñu ko biñ ko waxee digganteem ak loolu doon lu gàtt mais mu ñëwee ak jom mu am nag yeneen yu bari yoo xamante ni mi ngi ko doon dund dama ko ne loo fiy def lu kenn mën ko wax am dëkk mais nee na ma bis ma ñor teewul mu bokk otes mu ñëwaat ak dooleem ma nag mënumaa waaj dara talu ma jëndal sama rakk ji bagage talu ma def dara yëkkati trois cent mille francs mi ngi nii ni moo ko jàppalee rakkam du noonu mm-hmm. ànd ko ak xeeb topp ma nag chaque instant mu ni ma ay joor nu may def ma ni ko yow lii bu ko xeeb yéene bi nga ñëwee moo ëpp doole mm-hmm. mu xeeb ko lool kon donc yàlla na ànd bi yàgg yàlla dëggal ànd bi te yàlla bàyyi ko borom këram may leen njaboot gu barkeel ñoom dañ maa wóolu jox ma cër mm-hmm. yàgguma ci sëy de huit ans de mariage rek laa am bari na sax. yàlla <laughs> xaw naa bari waale waaye yàlla na gën a yokk teewul ñu wóolu ma jox ma cër mm-hmm. yàlla na seen jàmm yàgg yàlla jubboole ko biril may ko njaboot bu barkeel di leen remercier yéen nag nga xamante ni bu ngeen ñàkkoon suñu dund moom bu yeboo ñu dem jaay laal lali ci tali bi ndax yéen a ñuy feeñal yéen a ñuy dooleel merci beaucoup mm-hmm. jërëjëf na ko xaalis bi bari na ma dem <laughs> kontaan naa <laughs> nii la sa mag def ak yow ak xeeb nag merci beaucoup Sabel ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi <laughs> naka nga dundee ba su mbégte bi nga xamante ni moom la la sa rakk ji euh, dunduloo. waaw macha allah di wax rek gën a kontaan rek ma ne ko di kontaan rek ndax euh, yaakaar naa ni man moom ñoom samay rakk lañ Jeyna Jeyla Amira ñoom ñëpp samay rakk lañ donc dañ ma dañ ma dañ bëggal seen bopp bañ naa ko bu ñu toogee ñun ñëpp sax ñoom dañuy dañuy dañuy ñëw di ku nekk sama kaw ñuy xëccoo mhm. donc tey euh, foog naa tey lii rek war na firndeel ne ànd bi àndu dëgg la donc tey Sabel yow laa magale boole naa rek samay magale na sama maga lool kon mag ji may muy woote sama diggante man ak moom lu dëgg la donc tey nag li joor wax rek ñëpp xam nañ dama dama nekk sax si na si ay naqar yu bëree bëree bëree bëri donc tegle ay obstacle yoo xamante ne sant yàlla rek macha allah. mais nag bu bu bu naqari di am fii bànneex day am fii ndax sama rakkit ji wax dëgg fa neex yàlla ci lu ma mënti nekk bésam bii daf maa ñor te ko koy yéene allah mu nekk xale bu baax xale bu yaru donc maa ngi ñaan yàlla suñu borom bi rek yàlla suñu borom bi sàmm ànd bi donc lafal ñu cat ba nga xamante ne ku nekk lépp loo mbébét sa morom rek incha allah ba ñu dem ba suñu doom yi ñu koy ndeyalante te yaakaar naa kër war na mën a nekk Sénégal parce que musique sénégalaise toll na noonu xol yi toll nañ noonu donc macha allah ñi ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ne teew nañ fi di am mbégte contentement bril suñu chéri yi ñu ngi lay nuyu xamoon nañ ni dooñu ndax xamoon nañ ni dooñu war waaw naxoo ñu donc merci beaucoup merci vraiment merci ça fait plaisir quoi kontaan naa. asalaamaaleykum. chéri Yaas noo def. maa ngi fi maa ngi si jàmm bu baax. yaa ngi am tawfeex. maa ngi sant alhamdulilah. Euh, nga jiitu sa xarit. sa rakk ci néegu sëy euh, tey euh, ban yëg-yëg nga am ak lan kàddu nga koy dénkaat. Mm-hmm. waaw kontaan bu baax parce jigéen bu nekk li ngay ñaan yàlla. Mm-hmm. bis boo demee ba toll ci ngay xam mbégte bi nu mu neexee wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla nekk njiglaayam ah mm-hmm. allah. Euh, mais mu doon xale di dugg ci ci biir néegu sëy boo xamante ni Sénégal liñ koy bàkkantele boo dugg ci sëy sax dañ lay tiital naan néegu sëy yombul te ku ne xam na ni vie dafa xaw a metti lan nga koy dénkaat. bon mën naa ne yomb na yombul mhm. Mhm. mais na déggal jëkkëram xam nga mu muñ sayta yàlla rek tax mhm. ah, xool ci fa même xam nga xool ni nga xam ne jiitu nañ ko ci néegu sëy bu ko defee rek dina sëy incha allah xam bu toppatoo jëkkëram topp ci ay tànku jëkkëram rek incha allah dara du metti ci moom bu neexee yàlla. merci merci. ah rek noonu. man nag aayuma ci wax. ah di <laughs> ko jéem de. man nag moom mënuma wax. ko jéem de. <laughs> ah xanaa di kontaan rek. di fëddalewaat bu baax suñu kóllëre ci Dieyna parce que. suñu nawle artiste la mais suñu rakk la bu am jom macha allah ci liggéey bi def Bril tamit di ko xamante ni nii c'est un frère parce que defe naa ñun ñi nekk si milieu culture urbaine hip hop moom dañuy xamante des années lumière avant quoi. xanaa di kontaan rek man moom wax dëgg yàlla ku ne xam na ne man kenn du ma sax gis ci ay xew ak yu demee noonu mais Dieyna naa am fu ma teg mhm. macha allah te defe naa sama sœur yi fi nekk wax nañ lépp mhm. xanaa di ko ñaax rek di ko wax mu gën a góorgóorluwaat xam nga tey sëyam bu baax a baax a baax yombul nag parce que nga nekk si célébrité ba pare nekk si mariage c'est pas parce que nit ñi duñ la bàyyi mhm. duñ la bàyyi dañ lay topp tout le ñun xam nañ ci dara mais mu xam rek ne elle a un mari très discret man suma koy conseillé dama koy wax rek mu def tout pour garder discrétion boobu boobu ci ménage parce que moo koy may jàmm di ko wax rek mu góorgóorluwaat bu baax a baax a baax kontaan nañ trop jaajëf merci beaucoup